katante du lekka du naan du doole waaye soo demee ba nga war koo def ah danga war a kontaan ki nga koo defal tam mu kontaan ndaxte am na jigéen yoo xam ne foonante si gémmiñ def leen di daaneel nampa ween def leen di daaneel nampa bajo bay nampa copparite bi def leen di daaneel mhm. am ñoo xam ne juutal bi def leen di daaneel nga tëddal leen aj tànka yi def leen di daaneel ku nekk rek ak lu laa daaneel waaw waaye soo demee ba nga war koo def hmm, danga war a am sa bànneex ki koo defal kooku tam am bànneexam moo tax ma ne katante xel la katante du lekka ah moo tax ma ne góor ñu bari da ngeen war a xam hmm? Johnson yi bajo frontière bajo hmm? ndaxte am na jigéen yoo xam ne ah nampa ween foo nante si gémmiñ ah ak nampa bajo nampa copparite bi ah loolu def leen dee daaneel ah kon na góor gi xam leen frontière bajo Johnson bajo ah xattu mi métti wut ah xattu mi danga koy def ndànk-ndànk ah. sama gaañi naka ngaa nekkee jigéen ah nga sëy ba tas am say doom nga ne yow bëggaatuloo am doom góor ñëw si sa life mu takka la yow nga gomloo kooku ne man de mun nga maa takka waaye doom moom bëggatuma ko ok xale bu góor bi takka la te yow xam nga ne xale bu góor bii musuta am jabar musuta am doom mu ñëw takka la ngeen di dem di dem di dem ba benn bés xale bu góor bi ne la ah man de dama bugg a am doom nga ne ko yow bugguloo am doom léegi xale bu góor bi ba tey rek mu ngi laa wax de kon xaaral ma dem Afrika ma takk jabar amaa moom ay doom hmm? yow mi mu takka fii ci biir Europe bi yow nga takka sa ndigga nga ne loolu du am hey gis nga nit ki balaa ngaa dugg ci moom da ngeen war a waxtaan. ok moo tax diggante yu bari du dee dem ok because yow mënuloo sëy nga am sa njaboot ba pare. nga dem seeyaa xale bu góor boo xam ne ah musuta am jabar musuta am doom kooku ne la dama bëgg a doom xaaral ma dem Afrique takk jabar ah, ndax ma am suma njaboot yow mi mu takka fii nga takk sa digga nga ne loolu du am ngir lan xale bu góor bi moo neex koy baa baax dafa mun a kat ah. kii moom duma ko bàyyi mu dem afrika dem takk foofu keneen ah. su boobaa suñ diggante mun naa yaaxu moo tax gis nga diggante balaa nga cee dugga da ngeen war a waxtaan. ku la fi gën a mun a dem sëriñ di yaaxadoomi jaambur yi di leen fenal di leen sosal ah seetlu leen ko rek du dee rafet hmm? day mel ni comme golo bu puudaru foo ko fekk mu ngi soona raaga tilim salte ndax lan xol bu bon hmm? bàyyi leen doomi jaambur yi fii am na doom yoo xam ne kenn du leen laal de hmm? kor joojo maa am na doom yoo xam ne waa baax na ah rawatina nag ndox ndox daje si biir juróom bii am na góor ñoo xam ne boo leen moccalee kooy dinañ la moccal sa bajo ba neex waaye am na góor ñoo xam ne danga leen di moccal kooy ñoom ñu ne duñ mocca bajo léegi dama doon laaj xanaa bajo bi setut hmm? yow bajo bu set duuf nooy te neex ah boromam ràccal la ko ne la kaay nga nampa nga naan xaa nte woo kañ béewoo mbukaa suusu mbukaa suusu a gis nga sa jigéen nu muy téye sa koy googu di la ko nampal ba yow ngay këbëtu di wax naan ah suusuu kenn deke de ñu ngi waa diyaatale di ma rey ni nga mu nee mocca koy ah lii moom neex na dooleel gis nga doole boobu sa jigéen tam daf ko soxla te lii jigéen ñu bari ñu koy compileen kon nag bu la sa jigéen moccalee ba yow ngay këbëtu di wax moccal ko ba joom bi su nekkee dafaa xeeñ ne ko mu dem raxas ko waaw waaye yow lan la ah sa jigéen ràccal la ne la kaay suusu nga naan xaa beewoo kañ bu suusu bu suusu a suusu amaa kente ke a suusu sama gaañi naka ngaa nekkee jigéen nga sëy ba tas am say doom nga ne yow bëggaatuloo am doom góor ñëw si sa life mu takka la yow nga gomloo kooku ne man de mun nga maa takka waaye doom moom bëggatuma ko ok xale bu góor bi takk la te yow xam nga ni xale bu góor bii musuta am jabar musuta am doom bu ñëw takk la ngeen di dem di dem di dem ba benn bés xale bu góor bi ne la ah man de dama bugg am doom nga ko yow bugguloo am doom léegi xale bu góor bi ba tey rek mu ngi laa wax de kon xaaral ma dem Afrika ma takka jabar amaa moom ay doom hmm? yow mi mu takka fii ci biir Europe bi yow nga takka sa ndigga nga ni loolu du am hey gis nga nit ki balaa ngaa dugg ci moom dangeen war a waxtaan. ok moo tax diggante yu bari du dee dem ok because yow mënuloo sëy nga am sa njaboot ba pare nga dem sëyaa xale bu góor boo xam ne ah musuta am jabar musuta am doom kooku ne la dama bëgg a doom xaaral ma dem Afrika takka jabar ah, ndax ma am suma njaboot yow mi mu takka fii nga takka sa digga nga ne loolu du am ngir lan xale bu góor bi moo neex koy baa baax dafa mun a kat kii moom duma ko bàyyi mu dem Afrika dem takka foofu keneen ah su boobaa suñ diggante mun naa yaaxu moo tax gis nga diggante balaa nga cee dugga da ngeen war a waxtaan. balaa ngaa xam ne katante dafa neex nga koy sekk ak góor goo xam ne da ngeen buggante ngeen amante fiilin amante bànneex amante yëg-yëg bi ndax katante moom warut a naxari katante dafa war a neex war naa yëg suma boppa yow it war ngaa yëg sa boppa ok. waaye rawatina nag juutal ba mhm. gis nga buñ la juutalee noonu te fekk sa bajo baa ngi tooy ratax neex ah, buñ lay juutal rek dangay dégg taati naan poroj paraj mburucu mbaraca ah doxoti di dem ci kaw di dem si suuf ah booba katante la la dana ko daaxam te jigéen def dee baax nga kata sa góor di ko defaral yu neex yu saf ah góor xar la wax naa ko fi te dinaa ko fi waxaat waaye rawatina nag jigéen jigéen dañ koy jox bànneexam di ko neexal di ko béggee béggee waaw gis nga ni ngay yéegee sa boppa noonu laa war a yéegee suma boppu affaire gi xoolal ca kattante bala sama gaañi mun ngaa amee koy bu baax koy bu taxaw te doo xam naka nga koo utiliser waaye mun ngaa am tam koy bu neex koy bu baax sidit yëpp taxaw nga xam naka nga ko utiliser loolooy wax ji mhm. te gis ngeen zaari ko yooyu suñ duggee si bajo dangaa dégg bajo bi naan pokkoc pokkoc pokkoc pokkoc mhm. waaye am na yenn koy yoo xam ne dañoo dugg si bajo boromam di laajte dugg na wala dugg dugg na kañ kooy gaandaw mhm, si ko sañ a wax mhm. waaye koy daal dafa war a fees am sidit di taxaw di piitu naan la maa ngi nii kaay ma xatt la waaw waaye yenn yoo xam ne dañ mel ni koy kànja ba pare gis ngeen yooyu ñoo bëgg a bajo moo koy yu ndaw ndaw yooyu nga xam ne suñ dugalee rek ngay ndax dugg na wala dugg dugg na kañ koy gaandaw. Mhm. waaye kooy bu baax daal te dëgër am sidit loolooy wax ji xamal rek nata nga ko utiliser. Mhm.